amati mbégte ak kontante bu baax a baax baax jàkkaarloo ak yéen ni ñu koy defee rek saa su ne di dalal ay ndaanaan di dalal ay kilifa yi nga xamante ni yéen a ngi leen di xaar waaye tey nag ñu ñëw fi nga xamante ni moo di ñàgg ñaseen seet si kilifa gu mag kilifa gu Sénégal ràññee àdduna ràññee ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def di Seydi Ahmed Khalifa Niass tey nag moom la ñu toogal dañu koy bàyyi rek mu nuyoog mbokk internet yi papa ñu ngi leen nuyu bu baax di la siyaar jazakallahu xeyran amin wa iyaakum tey ñu ñëw fii ci ñëw bi nga xamante ni tey ñëw mbégte la ak ñëw bànneex sénégalais yi bëggoon a xam euh, lan moo sabab ñëw bi ak woote bi waaw dafay bopp at mi ci jullit ñi mm-hmm. muy tamxarit bi mm-hmm. dañuy sonn loolu ci atum jàmbur mm-hmm. kon bu suñu bos jotee waxi na beneen bi dañoo désale li nga xam ne moom la réew mi laaj ndax réew mi fi ne ndaw ñi ñoo gën a bëri te ñoo gën a jaaxle te ñoo gën a soxla te ñoo gën a pare pour def lu leen di génne ci problème yi te kenn geesoo leen bu leen bu la ñëpp geesoo it yàlla mooy ki nga xam ne moom la yëfam am njëriñ kon yàlla rek a ñu delloo leen ci yàlla yàlla buntam kenn mënu koo tëj ñii ni nag mën nañ laa bonloo mën nañ laa baaxloo mën nañ laa def loo def yu bari waaye nag yàlla tëjul kenn buntam ñoo xam ne laa taqnatu min rahmatillah bu leen ñaaw njort ci yaatug yërmande yàlla ñi olof nit ñi di wax woyoog bandeeg yooyu yëpp soful yàlla mën na leen bind defar leen mën leen a jéggal defar leen loolu moo doon bés bi mooy yàlla mooy ki fi mooy ki nu fi indi di ñu fi jëlee waxtu woo xamee ne su jëlee ñu fi jot na moo mën ñëpp moo gën ñëpp kon nañ dellu ci ki gën ñëpp mën ñëpp loolu moo doon bés am na ñoo xamante ni seen àtte mën na nekk àtte jaar yow mais message bi nga xamante ni na sénégalais tey bëgg yàgg nañ leen ko wax muy jigéen ñi pare pour sëy ba ñenn si tamit ñi nga xamante ni ñooy góor ñi ñeme wuñu tàq soxna lan mooy waral problème boobu ba du am ba tax njaalo bi du yomb à chaque bi da ngay takk benn jabar am ñaar fukk mm-hmm. xam nga loolu mm-hmm. da takk ndaw si mm-hmm. ay rakkam ak i doomi bàjjanam ak doomi ndeyam ak xaritam ak ñëpp ñëw ku ci ne la jabar la sañ nga ci man la nga sañ ci kay ñun ñëpp benn lañ waaye yow yaa ngi doon ut benn am ñaar fukk. Mm-hmm. nooy def. waaw loolu loolu jëkkër a jafe. Mm-hmm. bi ci des itam da jigéen joo xam ne am na jëkkër. Mm-hmm. jëkkër ji tukki. mu cukkur mut nu muy delloo ca fa mu doon tëbee moom bu tëbul heure bi golo yi tëb ba booru quatre heures cinq heures du matin dafa mel nekkatul nit heure yooyu bu jotee am na ci yoo xam dañuy toog toog duñ mën a téye seen bopp ah dem jigéen ñi nag bu mënta bàyyi jikko jooju nga ñi ëpp ci góor ñi bu ñuy fase dañuy xam ne ndaw si dafa leen waxoon ne mi ngi tëdd nelaw fekk ma nga ca feccukaay bañ xamante woon di fa feccee nam daan feccee ah amaana it di fa topp ku mu warta topp te ki war a topp ne fi yooyu itam ay waaw la loolu la loolu la aussi bëgg nañ mais mel na ni nag ñi nga xamante ñoo war a maye xale dañ leen yombalul tamit li nga xamante ni moo di soxna ba tey. déedéet xam nga ñi war a maye xale yi sax ñoom dañuy ne ngéeje ku leen ñaan di ab ndax wax dëgg yàlla ku tee xalu safara yàkkamti na nga ku la may ma ko xal wi xal ku ko téye rek yàkkam na ku la may ma ko nga ne ko demal ak moom waaw te xale bu jigéen ku ko am xalu safara nga téye xalu safara nga téye waaw moom nga téye moom nga téye lu tax xalu safara nga téye ah ragal nga mu def fi ñoom bi ci kër gi te ke te amu fi njëriñ lu ma yokk dépasse ah loolu tax booli bi gën a euh, euh, booli bi gën a gaaw a jeex loo rek la amuñ fi leen amuñ fi beneen jër bu bëggee nag ñu dem. bëri na ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo di waajur yi ñoom it dañuy jiital li nga xamante ni moo di am am alal ci ñi nga xamante ni ñoo war a ñaan ci seen i doom loolu tamit dina ragal loo tuuti ñenn ci góor ñi ngir ñu fas yi soxna. waaw ci la bokk nag wax dëgg yàlla. képp koo xam ne amoo dara. wax dëgg yàlla ut soxna wàcc na la topp tool sa bopp ba pare. ku amul ndékki añ reer noo yokkee noo indee keneen ku li laaj ndékki añ ak reer ah wax dëgg yàlla ku amul dara ñaan jabar moom wàcc na la wàcc na boo ko bëggee wàcc na la wàcc na la bawoo ko moo la ba loolu tamit euh, di lu am solo loo xamante ne aussi ay kàddu yu ñu mën a jàngatee la mais ba tey rek ma tëjee ak yow ci benn point boo xamante ne jamono ji nekk na ci actualité te dañuy gis ñenn ñi nga xamante ni dañuy génne fu leen neex di woote woo kilifa di woote woo sëriñ si bay jub ñi nga xamante ne ay kiiraama di ko woote ci réew mi bay dem di joxañ ay wàllu mbirum xar géej ak yooyu noonu loolu tamit ci jamono yu ñu toll waaw xam nga ci yéen jamono yonent loolu moo gënoon a bëri yonent bi dafa ñëw daje ay boobu Musaylamatul Kazzaab am sujaax sujaax ku jigéen la woon sax ba yoon na ci yonent bi ne ko takk ma nga yónnante bu góor yi ma yónnante ji bu jigéen bi nga war lijjanti góor ñi ma lijjanti la jigéen ñi bu guddee ñu ñu ñu def lu ñu neex ba bër set su ja amoon na loolu du fi du fi jóg mm. euh, bu taxutoon vrai bu taxoon nag faux vrai du am mm. soo léegi boo waxee xam-xam am na ñoo xam ne nga lu ñu tontu d'accord ma mel ni diine affaire yi d'accord la ak ñàkk d'accord au lieu nga ne yàlla ko waxoon la waxu ko yonent bee ko waxoon la waxu ko araam na wala araamu déedéet benn baar rek ngay wax d'accord ma mu génn la ca. baax loolu la baatu d'accord ma boobu moo yàq affaire ba njëlee diine indi ko ci d'accord ak ñàkk d'accord rek la affaire bi yàqu ñi nga xamante ni dañuy wuboo ay kilifa ay sëriñ ak wàllu yu dem ba naan mën nañoo xar géej ak yooyu noonu ñoom ci ci jamono ji ñu toll ni ci Sénégal ñu bëri naan axiru zaman la wala Sénégal àdduna may a tukki man yaakaar naa ne euh, am na ci yoo xam ne su fekkee ne ndof collectif lu moom moom wax ne moom la ndof waaw mm-hmm. mooy nit ñëpp dégg nañu loo xam ne mm-hmm. xel nangu ko jaaduwul waaye kon su fekkee ne tey nit daleen ne yéen bés sàngam heure sàngam damay tëb rek naaw ci asamaan si dem fookar ci la yàlla yoroon indil leen koy itam nii ñu ko gaawal ku jaaxle moom euh, borom xam-xam yi ci yenn téere yi nga xam ne oustaz mi dina koy jàngale dañuy wax ne kuy bëgg a ko joxee journal it jàpp ci journal ba donte la xam ne journal ba du teree lab loolu nit ñi dañoo toll ci waa ci bëgg lab mhm. loo leen jox dañoo téye ci donte le journal la mhm. waaw ñu jàppee ko gaaw a gëmm ñi waaw ñoom loo leen jox rek mhm. ne leen lii dina wax bu du ngeen laba rek ñu jël ko atewo boobu nga xamante ne ay yonent yi ñoo ko yonente ko fi mosoon a def ku ci mel ni yonent yàlla Moussa tey nit ñëw ne am sañ-sañ boobu mën na def ak loolu kooku ateem lan la mooy li ma wax rek mooy loolu du ko ci réew euh, moo xam ne nit ñee ñëw fa réew mu dof yi ëpp rek Sénégal nag moom ku fi bëggoon am xaalis dangay def société boo xam ne day exporté ay dof yow nga jël dof yooyu kii leen dafa paqueté leen ak yëpp wax lu ñuy peeseek waaw yëpp bu ko defee ah, xam nga tubaab yi si réew yëpp dañu am ay hôpital dof yoo xam ne dañuy soxla dof yoo xam ne dañ ciy jàngee nu ñuy fajee dof Sénégal moom ku fi de woon exportation dof société exportation des dof eh, rek eh, ak ilifu yi. wallaay day bëri la xa day bëri na ñëw gëm te mën nañ jàppale nit ci ay caaxaan. waaw mu ne ilifu kay moom am na fi. <laughs> bu fi dafa amul ilifu moom am na. wallaay. jërëjëf loolu tamit eh, di ay kàddu yu am solo mais dernière kàddu yi nga xamante ne nag bëggoon nga ko lancer sénégalais te ñëw ma ci ak yow lal leen doon rek ñu tàggatoo. mooy ni suuf Sénégal a ngi nii. pour cent ci suuf si laaluñ ko lu may tayal Sénégal xam nga bokk nañu li ko yàq xam nga lan naanum attaaya kum fekkoon loo jàpp ñu laa ñu ngi naan attaaya de nga ne nag naa bàyyi liggéey maa ngi ci attaaya ji walla naanum attaaya ci li yàq réew mi la la bokk attaaya dafa taxaw taxawaay sàngara araamul waaye la sàngara daan yàqal nit yëpp li ñu nga koy yàq yàq nelaw di yàq liggéey di yàq uh, lu bari même dajale dajaloo bi ñuy dajale muy tax ñuy wàllante feebar sax ci attaaya ji lay jaar fi ni bu ñu aayewoon uh, suukar ak warga uh, toj baraade yi rek bu ñu amee juróom-benn weer rek Covid dootu am genn wàll la Covid bi ci baraada bee kaasi lay jar ñëppay naan jox seen morom ñu naan nee nañ ko naan jox sa morom mhm. affaire mhm. loolu tamit solution bu mi mën na ko mën na ko mhm. bu ñu tojoon kaas yi rek. affaire bi jeex. <laughs> ñu kaas yi rek naan jox sa morom mu naan. te foofu la mbas mi di jaar mbas mi néew na lu muy jaaree ci noyyi bi waaye ataaya naan jox sa morom mu naan foofu euh, corona ante da ci am karana jox sa morom bu corona ngeen bokk corona ilaa yow ilaa yow message bu am solo la loo xamante ni sénégalais bàyyiwuñu ko xel. waaw waaw waaw waaw mbas mi ñëwee ba léegi mu ngi jëm yoon bu ne. waaw mais nga wax nii tey dafa doon loo xamante ne xel lu xel mën a nangu la. waaw am na de. Mhm. Hmm, am na hmm, am na. jërëjëf papa ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ci jotaay bi nga xamante ni amoon nañ ko ak moom mbokk yi nii rek lañ ko defee woon ak moom di jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf